ñeenti junne ak juróomi téeméer ak fanweer ci ay signature la Abdou Lahad Diakhaté conseil économique social et environnemental collecté ci première tranche signature yi si Dakar Kër Pape Diouf mi nga xamante ni moom moo dirigé woon délégation départementale fii ci Mbacké foofee nag la Abdou Lahad Diakhaté déposé signature yi ginnaaw nag bi mu ko collecté ci diir bu gàtt ànd ci ak ay basam yi nekk ci biir Touba ci mbooleem gox bu mu mënti doon njëlbeel dong ji équipe am yi ñi ngi si biir Touba di collecté waat yeneen signature pour nag clôture ba conseil économique social environnemental bi bi mu indee ci kanamu délégué bi yor wàllu wii si département bi Pape Diouf moom de jàpp na ni mission politique am mooy politique autrement teg ko si développement conscientiser population bi ñu mën a xam njariñu gouvernement bi si diwaan bi yamul foofu ne ginnaaw bi mu sooboo si wàllu politique si département bi dinañu nag gis lu bees ndaxte jàpp na ni volonté bi mu àndal moom ak ay gestion politique bi ci département bi Pape Diouf également am mbégte loolu ginnaaw bi mu ne mekkoon ni département bii di Mbàkke desunu ginnaaw ci wàll wi ndaxte li ñu soxla woon ñoom def nañ ko ñett yoon te sax ñetti weer yi leen mayoon jeexul waaye nag ni Abdou Lahad Diakhaté mii de jàmbaar la ci biir gaay yi ndax ñeent junne ak juróomi téeméer yi mu am yóbbu na lim bi fu sori. laa def démb euh, daje fa responsable yi mais nag euh, fekkee lépp yàlla rek moo ko mën dañu jàpp ne la ma def démb fale rek moom lay def fii mooy jël Sëñ Abdou Lahad li nga xam ne liggéey na ko dama fas yéene ko booleeg yi ma jëlee Mbàkke ak Touba jébbal ko borom liggéey kon maa ngi rafetlu vraiment sëñ laa liggéey bi maa ngi day feddaliwaat sama kóllëre aussi mm-hmm. que jàpp gi nga xam ne jàppante nañu ko ndax Sëriñ Tuubaa d'abord parce que man damay jiital loolu moo jiitu lépp waaye te mu tënku ci kenn ci wàllu àdduna muy président Macky Sall liggéey bii du liggéey mu bëgg en tout cas ñaan te ñaan naa ko sëñ mu taxa mu ñaanal ñu ci lu am ci ndam ma ne ko dama bëgg a raw la fépp dama bëgg a raw dama a raw kon euh, lii daal am na ci am daal parce que démb rek déjà ñu ngi woon à cent quatre-vingt pour cent hmm. kon man naa ne deux cent pour cent wala trois cent pour cent sax lañu Bambey à part de Touba Touba parce que euh, Mbacké soixante quatre mille et quelques lañ démb rek te lii bokku ci à cent seize mille boo ci doolee lii donc léegi lu cent cinquante trois cent cinquante mille yu ñu yu ñu sas région presque léegi Mbacké génne kon fi mu ne jàpp naa ne li ma jëlee Mbacké jëlee ko Diourbel jëlee ko Bambey déjà démb calcul bi lii bokku ci maa ngi woon si 166 000. conseiller économique social et environnemental ci Touba jóg na nag fa yéene ànd ak ay ñooñam dugg ci biir dëkk bi nekkat cible bokk na ci wax yi nga xamante ni ñoo gën a sore ci biir Touba waaye tamit ndaw yi mbootaayu jigéen yi secteur informel bi ak ñeneen ak ñeneen ngir joxaat beneen mandat njiitu réew mi ci élection yi di am février